mbokki xarit yi ñu ngi leen di ziar di leen jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay di leen wax na nag tey sunu gaal bàyyi nawet 24 ñu ngi fii tey euh, ci Sorano ci guddi bi nga xamante ne mooy guddi Djiby Dramé nuyu di basin nee naa leen tey du yomb ak Djiby Dramé bu wootee dafay neex du ma def lu dul di jaajëfal sama tëyër bi nga xamante ne tubaar fakal la macha allah muy maam Saliou Serigne Saliou Fall Ndiaga Yaaram borom marché Dior. moo génn ak man fii ne ma comme que jibi dara mi moo xew la te tey guddi mbasin la pël maa lay ñëwal nga sañse def ba mu baax Serigne Saliou yàlla na sa jàmm yàgg borom marché Dior ba junior du def lu dul nga topp ma si biir ak ñu won gars yi ruq yi ak ruqaat yi Sunugal nu point net nee leen ñun ñoo ko yëngal kenn du ñun ñu dem stress moom gis naa xam naa xam ne ñu ngi leen defal naka su dul noonu. waaw lépp nee naa leen ci bésu Djiby Drama bi nee naa leen artistes yëpp ñoo bokk ndey bokk baay bambara bee xew waaye tey doomu doomu euh, doomu tëngeej bi moo ñëw muy góor gi Ndiaye Ndiaye jaata Ndiaye. defu dara lu dul woy sama xaritu xol bi nga xam ne dafa gën fu ne góor gi Ndiaye maa ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax a baax waaye ma lay delloo ziar di kontaan ci yow nag bu baax a baax. waaw tey ñu ñëw fekk la ci guddi Djiby Dramé bi ñu bëgg xam sa relation ak Djiby Dramé lan la. waaw Djiby Dramé dafa nekk koo xamante ni dafay sama xarit lépp lu may def Djiby dafay teew kon su ma goree lépp lu muy def damay teew moo tax ma ñëw nag kontaan nag parce que ñëw gis saal bi ni mu mel fees dell ci kaw ba ci suuf vraiment sama xol sedd ma koy ñaanal yàlla na ko jik ci barke Seydina Mohamed. waaw mais góor gi Ndiaye temps yi fan si dañ lay laajte nee nañ da ngaa raar lu xew. non raaruma maa ngi jeex xam nga bon barki dem laa jógee Grand Théâtre yàlla suturaal ñu vraiment lakk fa yabay moom mooy lool donc nag ñu ngi joué donc nag euh, fan si ñoom defe naa xam nañ góor gi Ndiaye yàlla nu yàlla jàppale ba nga xamante ni saa su nekk ñuy mën di leen bégal parce que ñun ñoom rek la ñoom waa waaw góor gi Ndiaye tey da ngay yéeg wala da ngaa seetaan sa doomu ndey waaw damay seetaan sama waay rek xam naa ne bu laajee yéeg te mu yéeg toroxal seytaane rek. rek. waaw Mor xam nga mooy loolu jibi moom mënuñu ko bañal dara mais kontaan nag kontaan ci yéen parce que vraiment gis nañ liggéey bu rafet bi ngeen di def on est ensemble. rafet na. manager enveloppe bi mi ngi si manager Babacar Gueye oh enveloppe bi mi ngi si moom kon xel daal na ngay doon daje Sinon lan la ñu am bu yàkkam ci ay sa si bu yàkkam dëgg neexul si ñëw dama bëgg nga jëlal ma sama sañ sa bàjjen ndax li ëpp na sama bàjjen ku ne xam na ne def rek lay def waaye tey dafa gën a defati tubaar fakàlla macha allah bàjjen maa ngi lay ziar bu baax maa ngi lay ziar maa ngi lay delloo ziar ma chérie na nga def gëj la gis lool kontaan nag retrouver la na nga def. waaye fii jàmm rek kay. waaw bàjjen tey bambara yee xew la ñu ñëw fekk la fi bàjjen sa relation ak Djiby Dramé lan la. Djiby Dramé doon lakk kat rek. doom doomi fu la yow. ah bëgg di Djiby Dramé muy def yu baax aussi sama xel nekk ci ñëw seet ko ndax dama nekk dakaar nii ma ne xaaral rek ma ñëw loolu rek la de du dara te bëgg ko lool nag di soppeem. waaw nga fekk si ko si li mu woote muy basin bàjjen sa basin xam nga ne fu mu toll mu ngi fay fay prix. Eh, loolu nga wax de waaw kontaan naa yow de soo ko waxee mën naa ko gëm waaye nag xam nga comme ñun ci lii rek nuit du basin la ñu wax kon ñu def basin loolu rek la. waaw sama Euh, jibi waaju baax nit ku am yar am teggin te xam naa ci moom diine ndax euh, mës naa taseeg moom feneen fu dul fii euh, waa ju yaru la daal ak xam lu muy def man daal respect am ak bëgg nitam ak xam lu muy def moo tax ma ñëw fi tey di ko seetaan si. tey loolu sama bàjjen na ngi nii borom Paris barki yonent bi yàqul daraay Paris yàqul daraay Dakar nee naa la kii zéro faute la fu mu jaar war na faa jaar fu mu toog toogu waay la kenn du sama bàjjen bàjjen du ma def lu dul jaajëfal la bàyyi la rek nga dem toog seetaan sa xarit sa woykat. Djiby Dramé. waa kay jërëjëf jërëjëf ma grande kontaan gërëm ak sant. merci baax a maa ngi lay sama yaay booy tey ñu fekk la fii ci bésu Djiby Dramé bi ci kenn du ne guleet ci yow nag waaye ñu bëgg rek jox nga wax lu la neex si Djiby Dramé. Djiby euh, Dramé sama doom la maa ak papaam ñoo nekkoon Sorano ba papaam retraité tey nag bañ a karama ma andi daf may tëral moo jabaram tey nag dafa tudde guddi gi Aminta Santal ma ñëwoon andi enveloppe looloo tax ma tool dajeeg yéen fii guddi gi mel nii doon la war a mel bu ndaanaan day festeel waaw suñu yaay booy tey day yéeg jàppale doomam wala day toog seetaan doomam ah ma tey da ngay yéeg sa doom wala da ngay toog seetaan damaa yéeg joxe teraanga bi di ko xaar mu jox paas ma dem nit waaw tey lan ngay wax suñu gaynde ak suba seen euh, match bi yàlla na nu leen kenn tudd maa ngi ñaan suba sax damay woor yal na yàlla suturaal leen. yaa booy yaa na sa jaamu yàgg. kontaan naa ci dama laa faan. nga ma suñu tata bi def palmaanam bu baax a baax macha allah ñu ngi lay ziar di la jaajëfal bu baax. waaw maa ngi lay doon ziar la jox sa wàccuwaay di la nuyu baax di am kontaan ak mbégte bi ma dégg ko sa micro. kontaan naa waaw tey ñu fekk la si bésu ji bi daraame bi bambara bi nga xamante ne dafa xewle te saa yu wootee mu neex. ah ji bi day mbokkum Sénégal nag day mbokkum ma waaye day mbokkum Sénégal di sama xarit di sama càmmi macha allah boo dama ko war a wuy si waaye dama ànd ak marine boo xam ne maa Marie Diop Diop Boubacar ak Mame Mbodj moom laa àndal wuy si Djiby Dramé. waaw Ndeye Ndiaye maa yëngu ne sañ xat fanaanu kaay laa sol fanaanu kaay. bés boo solee sañ nga wax ma. ni mu set rek laa sol. waaw looy waajal. xanaa yu baax rek nag maa ngi waaj maa ngi ci ruq bi su ma génn di nga xam lépp dëgg la di ñaanal Lions yi yàlla may leen ndam 3-0. merci suba 3h la incha allah. incha allah waaw yal na yàlla def jaamu kon jaamu. di nga ko waxaat 3h la suba incha allah. yaa wax loolu. waaw kon loolu la. <laughs> am soow yi doomu dee su amee kiw moom gaysin la mais Djiby Drama mooy dëkk orchestre waaw bu baax Mali sama ginnaaw ngeen topp yàlla Mariam Sow madame en fait comme dama premier parti Binta Sampere ngi fi Jibril Diakité ngi fi Awa Dia madame Jibril ngi fi macha allah Aïda Sow Diawara ngi fi. dëgg la. Kalidou ngi fi. sama président koo xam ne du dem fenn bàyyi ma may xarit Adja Khadi sama kër gi nii toog. ba bëgg ñu may ko loxo bu baax a kon nag. benn parti moo nekk nii. dëgg la léegi nag ci bi ñëwal. dañoo yegg si nag ci li nga xamante ni moo ñu fi indi tey muy quatorzième édition bëgg la souhaiter joyeux anniversaire yow waa Dialikounda waaye derrière tout homme y a une grande dame may leen ma loxo maman chérie bu baax a baax. ñaata. waaw. léegi sax boobu dama ko dindi. dëgg la. bu ñu nee derrière tout l'homme. Mm-hmm. derrière chaque grand homme y a une grande dame.

on enchaîne. defal ba mu baax waaw. Sénégal defal on enchaîne. xarit lii laa leen indiloon fii ci Sorano ak Djiby Dramé nee naa leen sama bambara bu ñaar bi bu oote rek dafay neex chéri maman chéri ah tey fii wàcc na junior waxoon naa la ak Djiby rek Sorano du yomb daal ndaanaan bu la réer mu ngi fi tey ak sunu gaal bàyyi naa ak Sunugal 24 nee naa leen lépp ñun ñoo koy génnee lu lëndëm ñun ñoo koy leeral lu waay gisul rek ñun xool ko si ñun danga koy gis dëgg du neex du ma taay di jaajëfal suñu mbokk internet yi nga xamante ni euh, ñoo ñu dooleel ndax dooleel jën ndox la te damay faral di wax naan kenn ku la bëgg jar na daw ba dee ndax téeméer la bañ dëgg du neex maa ngi jaajëfal képp kuy bëggee pël bu rafet man mu ñàkk solo mi nga xamante ne damay toog gars yi di ma bëggee maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax di jaajëfal maam Saliou Serigne Saliou faal ñaga yaaram borom marché joor duma taay di la jaajëfal da gën riis yàlla na loxo bi wér loolu dong laa lay di leen jox di jaje ci yeneen programme yeneen daanaan yeneen artiste nee naa leen artistes yi man ak yéen ñoo far ak pël bu rafet man ak yéen ba ca àjjana ya